Guy Marius Sagna deelawti na ci loxoy takk der yi gannaaw lu ni mel miin na ko loolu euh, tey jii la rek jébbalaat na boppam ci àjjuma ji tey ci ngoon euh, foofu ca kanamu ministère de la justice la daal di jébbalee boppam euh, moom ci benn manifestation ba nga xamante ni préfet daf ko tere woon ana moo tax Guy Marius Sagna njiitu France dégage moom dafa demoon rek ngir wane ñàkk àndam ak ñenn ñi nga xamante ni ñoom ñoo àndoon eh, ci ñenn ci ay ñoñam wala bokk ay doomi sénégalais yi nga xam ni dañ leen teg loxo mat na léegi ñetti at ñoom ñi la ñu teg loxo muy Vieux Diop bi ñu arrêté ak ñeneen lépp rek ci wàllu ba drogue bi nga xamante ni eh, ci lim bu takku lañ ci tegoon loxo ñoom ñi la ñu jàppoon leen kon ci wàll boobu Guy Marius Sagna tey jile euh, gannaaw bi ñu koy jàpp boo leen xoolee ci image yi nekk ci senego.com mu ngi wàcc ci benn oto sol benn yére olofam bu verte mi ngi yoroon sax benn enveloppe bu am këyit mu waroon ko déposé ci ministère de la justice euh, ci wàllu boobu bañ koy teg loxo boole nañ ci ñeneen ñu mu àndaloon di Aïssatou Niang Daouda ñaa Awa Niang Balla Biaye ak Babacar Coly bokk na ci li nga xamante ni rek ñoom ñi ngi ko doon ñaxtu gannaaw atum 2019 ñi nga xam dañu leen tegoon loxo ba tey jële ci wàllu drogue boobu ñu daal di tegoon loxo euh, lu ni mel ñoom Guy Marius Sagna ak ñamu àndal bokk na ci li nga xamante ni tamit moom la ñu fas yéene woon euh, jébbal euh, ci kayit gi nga xamante ni ñoom moom la ñu waroon a déposé ca ministère de la justice muy wàllu li nga xamante ni mooy longue tention ñi nga xam dañ leen di téye ci diir bu yàgg du ñu leen jugé liberté provisoire ak tamit contrôle judiciaire géométrique variable bokk na ci tamit wàllub kaaraange li jëm ci wàllub yoon maanaam mbir yi daal dañuy gis ne demeewul noonu maanaam jaarewul euh, ci yoon bi nga xamante ni moom la justice war a doxee euh, waaye tamit wax nañu ñu may kii nga xamante ni moom mooy Vieux Diop Babacar Diop Mamadou Niang Seydina Mohamed Ndiaye Jula Sow Alioune Badara Koli ñu may leen liberté provisoire gannaaw yàgg nañ lool ci kaso bi.